fi la ole la ana ñuy suus ba noppi ñuy boole ba noppi di suus di suus ba noppi nag di métti ana ngeen leen kër yi may xoola ah. dama bëgg avant may dugg ci wàllum banaana bi eh, kër yi dama bëgg mu yegg ba vingt mille ah huit mille moo fi nekk ci deux minutes laa ko soxla la preuve que man rek ngeen di topp maa ngi solaat weer yi ndànk dafa cher nag Saudi Arabie laa ko jëndee Màkka dem naa Màkka dem naa ziare Cheikh ñëw naa ñett moo nekk suma jëmm ji muy ruuxu gi xol bi ak xel mi am na beneen nag bu tënk yooyu yëpp muy nafse bi nafsiya bi xadaratu naasut man damay dundal ruuxu gi ci yàlla ah ba pare dundal ruuxu gi ci yonantu sallallahu alayhi wa dundal xel mi ci seexu tijaan yi dundal xol bi ci Baye Niass dundal bakkan bi ci àddina <laughs> ku xam-xam nga ku xamut baal ma je suis vraiment désolé maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak jëmmam Cheikh Ahmed sa ñëw na am na imaam yuy firi alquran ku bëgg a déglu alquran bu ñuy firi ci yax ba ne xaala wax na afala taxsiruuna nangam nangam da ngeen di dem ci ñooña am na ñoo xam ne dañuy jàngale julli ku bëgg xam ni ñuy jullee demal ci ñooñu ñu jàngale la vie simple am na ñoo xam ne. te dañuy jàngale ni ñuy jàppee dem leen ñu jàngal leen am na ñuy jàngale alquranul karim dem leen ñu jàngal leen basin ngeen dem jàngi man damay jàngale wàllum sëy maanaam góor ak jigéen buy tëddante man loolu laay jàngale ku bëgg a déglu toogal forcé wu ma kenn ku bëggut a déglu Sénégal pour wan la niveau niveau naafeq bi xam nga nit ku war a waxtaan ne moom jàngalewul julli jàngalewul nu ñuy toppee sëriñ moom jàngalewul économie moom li muy def mooy jàngale góor ak jigéen buy tëddante nan leen mën a def ba mu neex te kenn du gaañ sa morom mais buggoo déglu demal boo fa taxawee rek doomi xaram nga maanaam ku buggut déglu rek doomi xaraam nga ku bëgg a déglu nag moom fan nga nit ku baax nga yal nañu la defal defal jàmm ku fi toog yaa fi bàyyi sa bopp magam jëmm nag war ngaa am kersa bàyyi sa bopp place bu ñu la woowut avertir la ne génnal nga dëju ba pare ne ne da ngay am looy wax. loolu moom xam ngeen damaa mën a defante mën communiquer gis ngeen ni ma communiquer voilà léegi ku fi toog te neexu la fi dëj sa bopp mag mu dëj boppam ci place ba pare di kebetu doomi xaraam la léegi xool leen doomi xaraam yi ni ñuy ni ñuy commentaire xool leen doomi xaraam yi <laughs> xool leen leen léegi en vrai doomi xaraam mooy ñuy critique nante yi ñi seen yaay baaxoon seen seen kër baay mooy ñuy bëggee di sànni kër di di wax yu baax ñooñooy ñooñooy doomi ñu sell ñu baax ñi doomi xaraam yi mooy ñuy saaga fayu naa avant ñuy saaga maa mën maa ëpp doole maa gën a fee te xaale xoolal Papa Diouf ki tey dama bëgg sëriñ bi comme tey dafa am dafa ñëw dama bëgg ngeen laaj moom mm, li nga xam ne lënt na leen ma leeralal leen exactement lan la dama bëgg ngeen laaj ma lan moo leen lënt ma tontu leen koo xam ne amoo question bul yéeg ku fi ñëw nan waa sëñ bi yow laa bëgg dama la sopp yaa fi ne soxlawuma loolu li ma soxla mooy question tontu amoo question toogal nga déglu nit ñi da ngay wax dëgg organiser pour nit ñi dem ñu ne la danga nga vulgaire da nit ñi dañ laa bëgg waroo jaay fuuy réew non mais fuuyu ma dama ñëw pour tontu question amoo question déglul c'est simple. c'est simple quoi. Ramdan nga ne di nga ma ñawal lu rafet jërëjëf waay. Euh, dama ñëw tey pour wax leen benn affaire bu am solo bu ngeen dut bàyyi xel gis nga yenn situation dafam góor ñu sewaa ah, dañuy nekk ak seen jabar ci yenn situation léegi su ngeen demee ba benn jabar soo ñu ne la may ma suma jàmm yow fii laa la doon tëddee ba ngay ngelawal noo jigéen ci certaines positions danga koy tëddee nga foog ne dafay ngelawal noo ngelawalut ngelawalut de patriote danga réew ba dof jóge fu baax daanu fu bon <laughs> patriote man dama laa bëgg ñoo bokk Ousmane Sonko loo ma wax neex na ma baab naa ko dootul commentaire léegi dama bëgg am na góor ñu koy xase benn jigéen dem dafa ma jot mu ne ma Cheikh man suma ma ji jëkkër daf ma ne noo non bu leen bloqué patriote day day ruube rek bu ko buleen ko bloqué bàyyi leen ko bu leen ko miit bàyyi leen ko mu wax day ruube nit ku baax la baab naa ko dootul wax dara mu ne jëkkëram daf ko naan su ko ne yow mënoo dara daf ko naan dangay duul dangay fen parce que man saa yu ma la laale lu ci bari dangay ngalawal ma ne ngalawal mu ne waaye ma ne ko sa jëkkër ku ñàkk jom la gis nga jigéen danga koy téye yenn position lu ci mel ni lu anglais di wax backside xam nga olof moom loo ko wax ñu ne dafa ñaaw backside doggy style ñu dégg anglais xam ne li ma wax maanaam jigéen bu <coughs> bu sëpp ñaari loxo mi sëpp ñaari omo mi wan la ginnaaw sooy dóor yenn saa yi nga boo dóoree nga génnee nga dóor dafa am air yu ndaw yuy dugg ngelaw te ngelaw boobu su bokkut ci doomu aadama day génn moo tax nga génne seen mu ne brrr mel ni day ngelawal fekk du ngelawal ngelaw bi mooy génn surtout soo ko bàyyee mu toog da ngay dégg mu naan son yi day wutee quoi mën na am soowu cóol soowu soowu soowu mbëpp soowu nangam du ngelawal xam nga maa ngi woddu kàddu yi olofa naqari maa ngi jéem ba sonn mënoon naa wax doxot mais dama ne ngelawal pour mu rafet ngir mag mën ko dégg xale mën ko dégg donc ngelaw yooyu noonu jigéen di génnee doonut ngelawal air bu duggoon la dafay génn faw ngeen di xam lu ci ëpp nag ci doggy style lay ñëwee mais mën nga tóoj nit ki ci kaw lal bi façon nga tóojin boo xam ne boo dóoree ngelaw day dugg ngelaw bu dugg rek ci ci awra jigéen bokk ci dafay génn ndax na yàlla dafa yaatu ngelaw loolu mën na def nax buy métti ngelaw loolu mën na tax tey mu jaxase réglam moo tax yenn saa yi daf ciy baax soo dugalee ba mu yàgg nga génnee nekk ci euh, kii dënn bi xaw def yu baax yooyu noonu nga gis awra bi nokki nokkiwaat bokk na ci tëddante awra bi dafa war a nokki pas tout le temps bousculer dóor dóor dóor non non non da ngeen di bàyyi awra bi mu nokki mu jël temps même ci biir laalante dafa war di nokki dafa war di respirer wu surtout bu fekkee ne yow ki nga séqal yaa ko pour doole yaa ko mën da nga koy bàyyi mu nokki su nokkee dafay tax mu gën a neex gën a saf mais di ko topp rek duur duur rek bu yàggee day métti day gaañu du noonu maanaam laalante yërmande la waaye du méttit am na góor ñoo xam ne nag moom bala laa mun a sonnal rek nga nga nekk ci méttit dañ ci am ndam loolu moo leen di neex loolu laay woowee góor gu soxor du noonu jigéen da nga a laal ba pare mu lay gën a accolade di la ñëw ko naan la bébé je t'aime mbaa doo bàyyi mais laal nit mu pare daw dem ci duus ba làqatu non <laughs> loolu danga koy traumatiser émotionnellement tu traumatises la femme et c'est pas bon <coughs> donc kon yéen góor ñi nga xam ne dangeen di ndamu naan naan ay suma jigéen dama koy laal ba muy ngelawal loolu du ngalawal de loolu la preuve tey jigéen bu ñuy laal muy ngalawal te am na lu koy def mooy ñu lay sodomi sodomi mooy fi yàlla xaramal mooy fi ngay demee toilette ñu ko fay dugal. donc su fekkee dañuy dugal ay moo dugal sax mu may mu may moo dugal dugal dugal ah, dugal dugal dugal ah, suma bopp a ngi xesen c'est bon suma fermeture ba sa bouton bi génn xaaral ma tëj ko jàngale dafa metti donc tey ma wax la dara bu leen di sodomi seen jabar wala su fekkee ne da ngeen dem ba di ko sodomi bu ngeen ko sodomee raxas leen seen awra bala ngeen ñëwaat ci ci ci bagaasam yi parce que dafay indi infection te yàlla lépp lu mu xaraamal boo demee ba mu yàgg rek xalaat ne li tax mu xaraamal ko sa ngëneel la yàlla daf la aaye sodomi yéen jigéen yi bañ leen ñu leen di sodomi góor ñi rus leen di sodomi jigéen ñi bu fekkee da ngeen bëgg lu xat kaay leen ma jaay leen seen awra yi yokk mënu leen ko tëj leen seen nangamtaanu jabar yi mu tëju waaye di sodomu jigéen dafa xaraam te maa ngi koy dénoncé su ma jigéen ñi ñi nga xam ne man ngeen di topp bu leen nangooti ku leen sodomi bañ leen baaxut sodomi baaxut bi gën a bon nag mooy mu laal fa mu war a laal génnee sodomi génnee laalaat nga nekk fa di bànneexu mu ngi lay rey dangay toog jamono sa taati day génnee ndox da ngay toog jamono am infection te góor yi ku fi am infection ñu bàyyi la dem ci keneen góor gorewut ci wàllum bajo gorewut ci wàllum kat lu ko neex rek ak ku teew la xam kon jigéen ñi bañ leen ku leen sodomi sodomi mooy fi ngay demee toilette ñu dugal fa kooy loolooy sodomi bañ leen ko bu leen ko nangu yàlla daf ko xaraamal sëriñ bi daf ko bañ ndax man lépp lu yàlla xaraamal bëgguma ko waaye lu daganal nag bëgg naa kon bañ leen sodomi yéen su may jigéen am na ci benn jigéen ndeysaan bëgg jëkkër ji saa yu ko waxee sodomi mu bañ mu ne su ko jëkkër ji sodomi day dem toog mel ni day te toilette du génn ma ne ko gisoo koo dara sax yàlla xaraamal ngay sodomi ngir bëgg sa bànneexu jëkkër yàlla dafa aaya topp bànneex ku ñu bind ba merloo ki bind muy yàlla du diine sa jëkkër lu mu foor foor foor bu yàlla xaraamalee mu nangu bañal yaa am tiyaaba moo am bàkkaar sodomi man de wax dëgg yàlla football naa terrain bu ne amical naa fu ne mais musuma sodomi suma àdduna suma loxo ca kaw duma verse nag mànduwuma yemuma waaye musuma sodomi ku yàlla bind parce que nag dama dul gis teraanga ak xéewal bi yàlla def ci mbir mi ak nooyaayam ma koy romb di dem di sodomi fu duus waree génnee puus puub yàlla tere sëñ bi du ko def képp ku may topp bu ko def maa leen di sensibiliser ci bu leen puus puub ba pare bis bu jot amoon ba ma découvrir leen wax leen dëgg-dëgg Anna Ndiaye ni ko yàlla bindee ak Anna Ndiaye mel ni mel ci biir ba wax leen li ci Anna Ndiaye kon du ngeen sodomi bu leen sodomi jigéen ñi bañ leen góor ñi bu leen ko def yàlla ko xaraamal te dafay indi wéradi billaahi wallaahi tallaahi li may wax ni alquran la aaya la ñi comprendre dara nag moom dañuy foog ne waxi caga lay wax alquran de laay wax di ko firi ci jamono nu mu toll ngay bëggee di jàng ba pare danga ci noter leçon c'est ça qui est important c'est ma pédagogie avec mon ambiance mi yàlla moo ko xaraamal ma di leen digal bu leen ko def te lu mu yàqut du ko defar mun naa leen a jàngal tey su fekkee ne su fekkee ne danga am jabar affaire bi yaatu yow nga ndaw la nga bëgg mu xat nan nga war a laalee ba mu yem fa rokk te du ko paase mën naa leen koo jàngal billaahi xam naa ko nga am lu tuuti sa jabar am nii nga dugal nii mu des nii nan laa la war a jàngale ba espace bi tëju mën naa ko man billaahi wallaahi tallaay mën naa ko leer gi màkka laa jóge ak faas xam nga tey jigéen su fekkee moo la ëppale ma ne <laughs> may leen ma yéen ñi may déglu pause leen tuuti yéen ñu baax ñu yiw ñu nekk fii nga xam ne yéen malaayka ngeen du ngeen bàkkaar lu rafet rek ngeen bëgg da ngeen di dem ca ñu rafet ña ngeen déglu leen ngeen bàyyee ma ñu bon ñi mu ñun ñu waxtaan suñ tesee yomal xiyam ku ne xam ko gën sa ndey comme da ngeen bëgg lu yiw te man waxuma lu yiw te forcé wu ma leen génn leen suma live ngeen dem luy problème bi lan mooy problème bi waaye yow yaa ngi toog nga ne bëgg nga lu yiw kii lu muy wax yiwul di saaga yow defoo lu yiw di kon génn leen ngeen dem yéen ñu baax ñi dañoo bon ngeen bañu fi ma ñëwaat ci yéen ñi may topp ah, <laughs> yéen ñi seen ndey seey nga xam ne lu baax ngeen bëgg doomi xaraam moom ñooy saaga donc <coughs> su fekkee da ngay sëy jigéen boo xam ne moom moo la ëppale maanaam moo gën a yaatule daal nan nga war a def ba xat ba ci moom hmm, sëriñ bi tey moo xam-xam dangeen ngeen ni motta su nag yi xam-xam bi nag ci xam-xam bi nag ci toog xam-xam bi nag ci toog xam-xam su fekkee ne danga nga jigéen boo xam ne moo la gën a xóot maanaam yow sa guddaayi awra bi yemle nii boo dóoree tuuti hmm, boo dóoree ba mu jeex du yegg des na ci biir kon xam nga kookoo la sut benn point la ñaareeli point su fekkee ne yow booy dugal commencement bi du am wuy yaa may gaañ ndànk danga may rey yow da ngay ñëw rek dugg rek ne mel ni kër gu amul rido su boobaa ñaari point la moo la gën a yaatule yenn saa nga gis koo xam ne yow boo dugalee dinga jot ax gi mais day yaatu kon kooku moo gàtt yaa ko sut mais moo la ëpp yenn saa yi nga gis koo xam ne bu dugalee doo daj gauche doo daj droite yow doo daj fenn doo daj sa kanam doo daj ci digg bi yooyu <laughs> am na góor yu tuutile am na ñu gàttale caay léegi bu dee loolu nga am yow danga war a yéex a yéeg xam nga nooy def yow sa laalante loxo la war a doon ak làmmiñ sa loxo yi ngay raay commencé ko fii ba ci cati tànk yi sa làmmiñ di daw ci loos gi fii wàcc fu ne nga dugg gis nga boo nekkee di jëfandikoo sa làmmiñ di jëfandikoo say loxo ba nga xam ne moom lalli na darab bi en fait man dama bañ ngeen lal darab bam naay ngeen laalante ba pare mel ni ñaar nit tëdduñu woon warul demee noonu kon am na ko tële da nga koy jàpp point ba mu lalli dara bi di pël ngegenaay di yuuxu di tàpp sa ndong li ba nga xam ne saw na benn mu doon saw ba pare ma ma dugal foofu benn affaire yéen jigéen ya ah, Sénégal Gambie da ngeen am kersa ba ci kaw lal bi yéen ak seen jëkkër da ngeen di am bànneex di ko naj ngir am kersa bu leen di iñaanee bànneex yuuxul bu ko laajee saagaal bu ko laajee dóoral dalli lal bi saw ko olof dafa wax benn wax ju rëy te du ngeen ko dégg man borom xam-xam bi maa ko xam boo daan dem mag ñi nan tey dañ la daan wax naan yàlla na sa lal na sa lal tilim saalum saalum la xam nga lu mu firi mooy yàlla na nga am jëkkër ju dëgër mu lay laal ba ngay saw lal ba tilim na yàlla na nga am njaboot ñuy saw lal ba lal ba tilim na yàlla na ngeen nekk di am kàttanu laalante ba lal bi di tilim parce que sperme sobe la tilim la mag ñaan gi mag ñi ñaan gi yëpp la ñu mbëbëstal na la yàlla na sa lal tilim xam nga wax ji mosu leen koo xam sëriñ bi moo ko xam man maa gars yi du benn suma xam-xam dafa kawe dafa kawe mag ñi suñu ñaanee yàlla na sa lal tilim ñaan gi li mu ëmb bëri kon jigéen ñi bu leen di nay waaye dangeen di nekk ak góor ngeen di bañ a yuuxu naan suma ma yuuxoo dama tuuti déedéet jamono boobu yàlla yuuxu islaam bi ñu gëm muy lislaam daf ne boo nekkee ci kaw lal ba ca bànneex loo diggee rek duñ ko jàpp du dëgg loo mayee yaa ko moom waa su lislaam demee ba comprendre doomi aadama ci situation boobu waaye yaay kan ba ne doo yuuxu dafa am ñuy war a saw saw leen sëriñ bi nee na ngeen saw foofu la ngeen toll saw la laaj jaamu yàlla foofu noonu ci instant boobu mooy saw jaamu yàlla mooy yuuxu du allahuma arzuq naag lu kenn xamul loolu ku am dal moo ko mën koo xam ne laalante woo ngir bànneex waaye da ngay jaamu ji yàlla koo kookoo mën a tiim daanu nam neexee nga naan allahuma arzuq naa bilaa da nangam oh sëñ sëñ nekkul ci yooyu man na waay Ouais. Ouais. Euh. c'est bon. mais ouais yëpp loolu nga mën defal li nga mën. waaye nag boo demee ba am dal ba jege yàlla ba nga xam ne tey yow da ngay lekk te doo xiif lekkoo pour suur da ngay jaamu yàlla da ngay faju ji ngir topp na loolu étape la étape la ñoo ñoo mun a nekk di waaj a daanu di xalaat lu ñu war a jàng. mais nit ñu suufee ñu mel ni man ak yéen bu leen nekk ci sax yu ñu war a jàng yu ñu war a tari daanu leen rek naturellement bu laajee lalli dara bi lalli leen bu laajee yuuxu sëñ bi nee na yuuxu leen bu laajee màtt matt leen mais ndànk <laughs> am na ñuy màtte wala nga jël ngegenaay bi taf ko sa kanam yuuxu bu laajee saw sawal soo paree nga delluwaat nit normal waxtaan kafre mais bu leen di iñaane yuuxu yéen góor ñi tam da ngeen a sëkk léegi-léegi góor ñi jàppaleen leen point nga naan di ko naj pour pour ngeen wax mm-hmm. iñaane ngeen ko seen jabar yi da ngeen di naj bànneex bi bugguma loolu bànneex da ngeen koy bàyyi bu ñëw naturellement il faut laisser les bànneex viennent naturellement donc góor ñi nga xam ne xoolal góor ñi nag bu fekkee ne ñi la koy aaye la naj la bànneex da ngay jàpp ba mu ne la bàyyi yaa ngi may gaañ arrêté bul arrêté jàppal foofu la jàppal dañu bon soxor da ngay sañse duñu la ne sañse nga nga togg duñ la ne neex na nga jàpp leen palaas duñ la ne yaa ma mën yaa ma gënal suma yaay de naan pat ba nga yow ngay ngay ngay insister ngay insister ci sa mentalement psychologiquement naan waaw est-ce fi ma ko jàpp neex na billaahi neex na dafa doomaraame rek doonub xaj neex na de jàppal am na place yoo xam ne boo fa nekkee gis nga diggante woy ñaari yore yi ak teppax boo fay dawale sa làmmiñ bul bàyyi góor goo ko def kuramaas ko <laughs> waaye bu neexee dëgg na da ngay toog mu sànni la bomb yi Bashar al-Assad doon sànni wala laa demee Poutine mais di mu ne la mbër bàyyi da ko du ko tey si dit yi war a téye foofu ngir képp ngelaw li mooy bàyyi nag ko muy ñëw gratuitement. <laughs> Gambia donc dafa am góor ñoo xam ne yéen suma jigéen yéen laay waxal xam nga man jigéen ñi laa bëgg yéen laa faral yéen ma gënal góor ñi yéen rek laay topp da ngeen leen di jàpp place bu baax ñu naya yuuxu naya siiku nay laa gërëm sant la duñ la encouragé bayoo da ngay duggaat ci groupe bi pour xool nan la ñuy bégalee góor billaahi yaa ngi koy bégal am na góor ñoo xam ne dañoo rëy rëy rëy ba pour ñu wax la dañ def affaire que dañu bëgg a tëdd ak yow non de nan pat loo tëdd tëdd di leen def da lay leer na nelaw ñu ngi lay xaar pour nga cokkaas leen billaahi su ma doon jigéen da xaar ma cokkaas la dem tëdd ci saal bi man duma la sax faale su ma xale yu jigéen loolu laa leen di digal de góor moo la war a tappaas waaye am na ñoo xam ne dañoo rëy te boo ko fa ajee ñu aj ko fa weer nga aj ko ñu aj ko ñu aj ko ajal rek yow ayu ko soxla ajal ajal ajal ajal rek tôt ou tard mooy wàcc waaye dafa am góor ñu imbécile góor ñu bon góor ñu bëgg lu bon xanaa xamoo jigéen moo gën a gaaw a daanu góor su boobaa su la ko jaralee na la ko jaral yow nga dugg ci duus bi jël baaraam bii teg ko ci kaw ndànk mel ni ku koy raay mbelle di faj sa bopp quoi daanu sangu dem julli toog di ko xool rek te nag na ngeen am jom bu leen gis nga ger day saf mondial bu leen kii ñu okkule na ngeen ne xar bee day dem foog nga xaw a bañoon hmm, damay nelaw fekk nelawoo musoo gëmmentu mosoo gëmmintu na ko damay nelaw waa xaw ko ko jox na ko arrêteel waaye hmm, arrêteel jël sa loxo teg ci bopp bi xaw ko wane daal sagu noonu daal <laughs> sagu sabure waaw bu la dooree ba ci biir nag nga génne kerse gi di yuuxu di wax lu ne maanaam li la naqaroon ci xuloo bi wax ko woy yow lii nga ma xañ fan yi ni ma sonnee woon duulal rek yooyu day tax moom moom moom tam góor gi xam nga góor dof la day tax mu foog ne moom moom moo fi nekk quoi affaire bi da laa sa fekk safu la yow yaa faj sa bopp ci toilette mais duulal rek fenal c'est la c'est na ko woy fan yi yëpp damaa sonn lu tax nga bàyyi ma ni del kebetu rek kebetul ba laal ba jeex nga sangu tëdd bu bër setee na nga defaral ko ndékki ba pare rasal ko bu ko may bët mu wax la li xewoon démb dafa am ay imbécile mel ni man nga boo ko defee ba pare su ma la kaañoo <laughs> mais bu xëyee defaral ko ndékki bàyyi ko mu dem boo bu ñëwaat téewaatal sa bopp daa sa tête daf naan kii bi ma ko ignoré woon noon na mais démb neexoon na xaaral ma dooraat tey ngeen juboo gis nga problème mu sëy c'est pas tout le temps importance pour ngeen di toog di ko waxtaanee di ko jal si taabali yaa ngoone yenn saa ay action la